محمد The لهاني وجهلي ما تصلاني اصبر على البلاء والتقدم وادعو على سكوت والتجلد محمد مثاله لم ياتي فيما مدى وابدا لا ياتي te tiijaan yooyu nga xam ne tiijaan yi sëñ Tuubaa la fa ñu ko yéen a bàyyi benn murit du neexle du xuppe dara du tax ñu bàyyi sëriñ Tuubaa duñ ko bàyyee kenn te li ciy firnde biñ génnee portele bi ñu dafa bari tijaan yu bari ci laa bokk ñu mànkoo ne affaire bi buñ balaa muridee yegg si na fekk ñu réglé ko ndax sëriñ Touba am na murid yoo am na tijaan yoo xam ne bu murid yi gontee fekk xëy nañ bu murid yi xëyee fekk njëlu nañ bu murid yi njëloo fekk rañaan nañ kenn du leen duñ ko bàyyee kenn ndax ko ne mën na caa jëriñu sëriñ Touba am na sax ay catholique comme xas nañ ko ba bëgg kenn mëntu ci dara te defar na katolik muy Senghor defar na tijaan muy Abdou Diouf kon nañ nangu rek xam ne sëriñ tubaa sëriñ tubaawu ñépp la sëriñ taawu sëriñ tubaa sëriñ képp ku bëgg dara la bëgg dara fii bëgg dara fee di leen xamal ni bërëm bés bii di sëriñ Abdoulaye ñun mooy suñu néegu ndey soxna Fatima mi nga xam ne mooy waajuram wu jigéen mooy sunu maam ñu bokk ko ak moom soxna soosu rakkam bu jigéen am na ñaari doom yu jigéen muy may Maymuna ak Umayma sama bàyyi jël ma am ca Seex Tijaan ma nga fa moo topp ci xalifa bi Baye Ñas jël Maymuna am ak moom doom mooy Sëriñ Maxtaar Ibrahima Ñas sa Medina Baye ñun soxna si waa kër Sëriñ Abdu Borom dër bi ñoom ñooy suñu ñun ñooy seen néegu ndey soxna si mu nga jógoon ca Jarraariya dend ak Sarsaara fa lañ ko joxoon sëriñ bi sëriñ bi fa la gisee woon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam boobu mi ngi toog sama maam baddi ñu jàng bindi sëriñ bi xam nañ lii may wax ba pare sama yaay ci wàllu yaayam di sëtu Cheikh Sidiye juddoo buti limit ñu am geneen wàlla ak sëriñ bi mais dama yaakaar ne bu ñuy waññi xanaa Tuubaa ña fa am jabar am man ña fa am soxna am fa kër xanaa ñoom bokkuñ feneen man am naa fa soxna am naa fa kër ndax dénk nañ ma euh, ki nga xam ne tey mooy soxna bintu mu sëñ dan xariloo mu sëñ Modou Moustapha kooku xanaa bu bokkul kenn du bokk ma yor ko ba suñu waroom moom ko fukki at ak benn ñu jox ma ca kër sëriñ mu Moustapha daggal ma ma def sama kër mu jàkkaarloo jàkka ji ca bayti jàkkaarloo bagage yi sëñ bi man kenn gënu maa jege foofu may nuyu nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom laa bokkal ñoom ñoom laa bokkal ci wàll googu nga xam ne mooy wàllu néegu ndey bi fas yéene it ñu dox suñu bokk ak bopp googu ndax ko am kër baay rek am nga kër ndey te ñoom seen kër maam ay shérif lañ yoo xam ne dañ leen di siyaar te xam nga ne shérif fa la ray bi yem yóbbulaat leen seen mbokk ya ca jaraar ya ak sarsaaraak feneen ndax ñoom ñii tey war nañoo mën a moom jaraar ya war nañoo mën a mar sarsaara bu mag ma di leen dokkale bu baax a baax ci bés bi di leen sant ndax ay at sama yaay daf may ne damaa bëgg nga dem seetali ma sama bokk yooyu ci kër borom dër bi ndax ñooñu ñooy sama bokk kon ndokk bi yàlla dajalewaate bokk gi may dellu si di leen wax ne jamono ji ñu nekk dafa am ay force yu bari ci bitim réew yoo xam ne dañuy xeex murit gi te xeexuñ murit gi lislaam la ñuy xeex te xam nañ ne bu murit daanoo kenn du fi des lu leen yóbbu rek du fi bàyyi keneen kon mooy le mur central bi nga xam ne ñépp war nañoo bàyyi seen xel ci loolu murit yi rek ñoo fi bañ te lislaam tax ñoom rek ñoo fi bañ te tax dama ne bi Sëriñ Tuubaa ñëwagul ceebu jën moo fi nekkoon fekkee nañu ne ceeb bi ñu tudd wax ne mooy yàlla ci nattale bu yàqu waa daara ji xam nañ loolu jën yi di Seydina Muhammad waaye ku mos rek naax ah baax na bi sëñ Tuubaa ñëw nag di xorom si ñëpp di lekk ci ceebu jën bi te bàyyeetuñu ko waaye ku ne xam ne ne ceebu jën bu ca xorom génnee ku tibb doo tibbaat sëriñ Tuubaa xoromi lislaam la ndax moom indiwul lislaam bu ñuy xool lislaam bu ñuy mos xam la indi te du ko mu neex nga def ko li mu yor du pérém du pexem nit ku ñuul ndax kon mu bari fii du pexem nit ku weex ndax kon du ci jot ma gi yàlla la ku jàpp ci moom ci lu wér nga jàpp ku ko contre it contrôle wul sa bopp donte la yëguloo ko ndax dina na contre boppam te du ko xam sëriñ bi wexul soxorul xatul xatalul ku xat yaa xatal sa bopp ku xal yaa xatal sa bopp ñun sax dañ koy wax ne direction boo xam ne directeur ba murit la ñoo ñu gënal direction boo xam ne ka fa nekk du murit waaw moo ñu gënal foofu ndax boo ñëwee fa mu teg sëriñam la lay teg wala fu ko raw seen wiir la boole ko ak yar ak teggin loolu yaru sëriñ Tuubaa la man de fuñ ne buñ nee directeur ba murit la boo ko téléphoné rek mu ne la sëñ bi xaaral ñu def say bés indil la loolu ay xéewal la yoo xam ne mi ngi fii sëriñ Tuubaa nag fal na Senghor te du jullit far na fal na Abdou Diouf te nee na du murit fal na Abdoulaye Wade te murit bu wér la fan la Macky Sall mii su fekkee ne la ma sëñ Mbàkke wax soxna loo wax am na te moo ma ne ñëw na fii jébbalu ba ma jox ko fii place ci tóokóor bi ba nee na dina ko te xam naa ne la ma sëñ Mbàkke wax dëgg kon nag li am importance mooy ku bëgg a noppaliku nañ xam ne Serigne Touba xéewalu ñëpp la ndaree ku bañ yàqal sa bopp te loolu kenn gënu cee yell kenn koo xam ne nangu ngaa jël sa xol bi dugal ci sëriñ bi sa lépp day leer ku deful loolu yaa xam waaye li am solo gaa yi Serigne Touba yi kenn amul ko mel ni ñoom bu ngeen nangulee ki leen yilif yàlla jox leen yoolub yaru waaye kooka moom it bu nangulul ka ko yilif du am dara bu ëllëgee kon nag ndekete yëf yi dañ koy jokkuleente kii day nangulul ka ca kaw kee nangul ka ca kaw ba ñu àgg ca yàlla mu ñëw bu boobaa doo yare sa kàddu du jóg sa kàddu du sonn gis nga coow lu bari ni xam nga lu ko waral dañoo nangulul ki nu yilif rek conférence yi dana bari causerie yi bari nadawaat yi bari gaa yi mel nañu meloon lu ko waral bu boobaa bu nu wax mukk ni xele yi dañoo jàdd nanu dem seetaat sunu bopp ndax nun noo jàdd te Sëriñ Tuubaa waxoon nañ ko daf ni wa ay suma taxab ilaahaka al ahad yaxabka min xawfika hoo kullu ahad nee na jërul ngay wut ku la ragal garde corps jëru ko armu jëru ko ragalal yàlla boo ragalee yàlla lépp lay ragal wa ay suma taxab ilaahaka al ahad yaxab ko min faw faw xaw fi ko kullu ahad loolu dama ko daan misaal bu nu masaa toog ci buntu këru sëriñ bu di waxtaan toogaay boobu nga xam ne ni mu bañ a toogaay waaw danay toog ba mu yàgg nu seen sëriñ yi Abibu Mbàkke génne buntu këram di dox ndànk jëm ci jàkka ji doon ko tuuti koo xam ne ngelaw laa ngi koy bëgg a daaneel ndeysaan don ku sëgg ko xam sigi wul ba xol la waye bala moo ñew grand place bi ñepp ñëppay daw du fi lu ko waral li annahu khafa rabba khafa rabbahu wa xaafahu kullu shay ragal gumu ragal yalla motax lepp ragal ko te du dur ken mo do serigne touba bi serigne mbake waxe ni bu ko gaay dañuy melni ñu muuma dañuy melni ñu moo ne walaysa bi si mulkin yuxaafu uqaabuhu mu ne moo ne moom da du buur bu ñuy ragal ay mbugalam ak i kasoom déedéet walakinama al issu tedd nga gi bëx ci xolam moo jam ci xolu yi kenn dootul yëngutu gis nga loolu tarbiye boobu yemul ci nit gis nga boo jëleen sëriñ tuubaa moomu ak ragalam gi mu wekki ko yilif nga dugal ko ci biiri gaynde gaynde wekk ko ndax dafa wekk ka nga xam ne nii moo bind gaynde daf koo wekk moo tax bi ñu koy dugal ci géej gi muy doomu ajoor ju war a mën a diig ci paan ah, paanu ndox boo ko ci dugalee war naa diig kon bu tiimee géej war naa tiit waaye nañ ko diglu kayfa yuqaatibul baxra ayaa baxru waxi laa tusallis fa rabbuna تعالى أن تسليس أكرم به ربا أكا كون يمي يو جيج لو يدفني سبخ بخ جيك سبيك دجي تيلول يالا لبند دف كومو يكن من يالا كن لا كو دف موتاخ منو لوما دارا لوزاق رجال نا يالا موتاخ خافه البحر رجال نا يالا موتاخ خافه البقرة قافته البقرة رجال نا يالا موتاخ خافه الأزد كل شيء قاف شيخنا أحمد بامبا li annahu laqad xaafa rabba ba mu ragalee yàlla la noppalu di dem ciy got di tëdd ci àll jaan yi di ko wër jiit yi di ko wër te kenn ñimewu ko cee laal ndax lu nekk ragal na yàlla nit képp ak jinne ñooy ragal ak a ñime waaye li ci des lépp dañoo ragal yàlla aqiiqata ragal gis nga nag ku ragal yàlla ba àgg fa ragal yem bu dajee bindeef mu mel noonu day daal bokk ci daayira bi ma jox la misaal sayyiduna ibrahima alayhi mi nga xam ne moo gën a ragal yàlla ku ne kera ba ko namruus jëlee defar sawara wuy bëx-bëxi takk ba lu ko tiim ci kaw daanu ñu ni nañ ko sànni ba mu ca duggee lu yàlla wax yaa naaru kuuni bardan eh sawara bi seddal sawara jot na ndigal de ban ndigal la jot mooy sedd cey bu fa yàlla yemoon kon àddina tukki gi nga ba mu ko nee seddal day dem ba fa yigiwu sedd yem mu kole fa te foofa moo tàngoor yem képp fa tàngoor yem day rey nit fa sedd yem day rey nit te ñoom du ñu mooy yàlla bardan wa salaaman yàlla daal koy lugal ni déedéet ba ma nee bardan it waxuma nga lor ko ak jàmm nag mu aiguille bi yem ci fi mu war a yem gis nga bu yemoon foofu it sawara dootu lakk nit ci àddina mu ne ko nag ala ibrahim fa asara al amra ala ibrahim ne ko ci ibrahima mii képp laa wax kat boo fi jógee deel lakke keroog ba mu fi jógee ba léegi nag ko laal safara mu lakk la ibrahima nag mënatu koo lakk xam nga ku mu dootul lakk ku am daraja booba ku ragale noonu yàlla boo fa àggee nañ la sànni ci sawara bi kooku nag yar gu ñu yar seen jëmm moo leen ko yóbbu xëy na boobu yar xaw naa avancé tuuti ndax bu nu waxee yar rek mooy nu defee nii euh, mooy lii nu kii bu mag waxee nangam nga respecté ko bu dee nga mag nangam waaye mag day respecté mag day respecté mag mag mooy kan mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mag mooy kan mooy boroomam bi ko bind bu melee noonu ku mu xool nga yaru ku mu xool nga yaru gaa yaa ngi nii mën nañ maa seede <laughs> yaakaar naa ne ta saal bi li fi nekk doo ngay sëriñ Souhaïbou xaw naa takku ñoom sëriñ Siidee ngi toog ñoom sëriñ Modou Kéemaan a ngi toog maa ngi leen di laaj seen digg ak yàlla ku ci ñi fee masa dikk dugg ci kees goo xam ne wóor na ni sëñ boo ngi toog ci biir kees gi nga ñemee xit dugg ca kees ga doo ko def dangay ngay moytu moytu ba romb rek feneen oh, moo na moo na du la dóor moo na moom du la def dara waaw lu tax ñi mawu laa xool jëmm jooju lu tax boo ko séenee ci kees nga teggi dang koy daw té mu lewet lol léeg-léeg boo fa demee sax mu wutal mburo biskit waaye ñimewoo jege ngir al haybatul ilahiyya ragal gi mu ragal yalla moy bax baxi ba nit ku ko seen faawu nga lox koku mo taxan yar yomb ko mu dajale nangami téméri nit té du len xaji du len dor Cheikh Saliou Mbacké kat bu mag bobu mas naa ko wax université ma ni waaw man damaa jommi ci ñaari élèves yi ñëw naa université fekk fi ab élève boo xam ne bu ñu teral la wutal ko néeg bu rafet wutal ko lekkukaay bu neex di ca dolli ndox mu sedd léeg nga dolli ci say pompe def ci sa boisson te léeg mu wéq ko ni yëf yi dafa baaxul quoi waaw nga daal dem ci beneen université bu ñuy wax koom fekk fa ku toll ni kooka ciy at ñu ni ko yow kuy seen directeur ñaa ñaata recteur ngeen am mu ni xamuñu recteur amuñu ko ñaata directeur benn la ñu am ku mu doon Seex yu Mbàkke ana mu ma nga Tuuba du ñëw sax fii bu fi joxee nu ngeen di def ku nekk wuti juróomi dërëm ak xiif bi ak cere ji yu metti ji ak Euh, lal bu wow bi ak euh, ceebu gejj bi ak liggéey bu metti bi loolu yépp teewul bu ñu séenee seen directeur bi ah, ku nekk wuti juróomi dërëm di ko ko jox te naa ko yal na fi yàgg te wér waaw ñaari sénégalais yooyu mbokk yi seet leen fu ñu war a wutee mooy bii directeur daa yaroo weg yàlla bii directeur yi yarawul wegul yàlla moo tax gars yi duñ ko weg moo tax lee léeg nga gis ko ci xaañ ensee jàngalekatam naan eh, mais euh, garab bi ko soxoroon la bi mu nuy jàngal nun de sunu garab duñ ko wax loolu sunu gaay yëpp oto yi ñuy war seen dongo yu nekk Italie dañ ko yónnee te mas ngaa damu bëñam de moo na mas nga koo xaañ de waaye lu ko waral li nga doon joxe da doon xiiwal goo xam ne dootu fi jóge kon yar boobu nga xam ne mag ñi dañ ko doon yar ci la ñuy mën a amee njariñ dama mas dem ci benn atelier jamonoy Cheikh Saliou am ñaari xele wala ñetti xele yu fa ñëw ñu ngi yore benn mbuus bu mag nekk ci benn oto mbaar wàcc ci barab boobu ñu waxtaan ba añ ba pare ñu dem giseeg euh, commerçant bi ba lépp àgg waaja ni ma waa xam nga xele yooyu lu ñu doon wuta ma ne ko déedéet mu ne ay pièces lañ doon jënd 40 millions ñoo nekk ci mbuus boobu ñu yor xele bu war a toll ci jënd biscuit di ñaan ñaar dërëm ci biscuit man a garde 40 million jëlee ko Touba ba indi ko Ndakaaru jënd ci li ñu war a jënd lépp yóbbu ko xel ko kooku tarbiyaa ko waral yar moo waral loolu waaye tey ñii toog fii itam ay xele lañu dama mas a wax ca jumaay ja ni leen booba université geraw ciow li bari xeer yi dal mani len leen ku sëñ Tuubaa defar du ca bok ñu ma koko tek ma len dem len fañ ko doon defé do fa fekk maxtume mu dag do fa fekk dollu bu wad ta sama gaay ya ci université ñoo nga ak maxtume ya dollu ya te grenade yi bu jibee wax da yalla maxtume dina dag dollu dina recc waye duñ ca bok lolu moy tarbiya ñu dem New York amna ñu ko fekke ñuy def benn mars sëñ Xaadim mi ngi may dégg 11 septembre ñu tëj jàkka yépp jàkka yépp ñu tëj ko ba mu des jàkkee Cheikh Mouhamadou Mourtada at moomu defee na ni mars boobu kenn du ko def mais bi ñu demee di ñaan autorisation xam nga lu police bi wax ñooñe benn police rek mën na leen a couvrir kon ñoom yëg nañu sëriñ Touba. yëg nañu yarub Serigne Touba fekk nga ko benn police mën na leen a couvrir ak li Amérique tànge booba rawatina nag jàkka joo xam ne ci quartier résidence la nekk quartier résidence lañ ko def nodd yi jib xaside yi jib yar la Cheikh Mouhamadul Mourtada ba te am na ñu fekke am na ñu jóge fii wàcc New York passeport am am problème waaye yaa ngi moom a ci yam yëgu ko moom ma ngay jiitu yi dem rek ndekete wisaab ba jeex na bu yàgg ceey bu wisaab seex ngay jeexoon ci New York kon ba bisub tey ñoo nga naa at yam ak kenn du yam ak kenn mala bi ñuy yar kuy jël gaynde di ko defar ba mu mën a dugg ci biiri nit waaye waaye war ngaa mën a defar nit ba mu dugg ci ay nit te dara du dara du sikk kon noonu la mel kon nag yar boobu nga xam ne moo amoon ci yoonu murit yoonu murit nekk gennu kàddu gennu kàddu kenn du yëkkati kàddu lu ko waral mooy kàddu gi day jib jóge ci borom bi tabaraka wa taala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa jaar ci Cheikh Ahmadou Bamba xol bu mu dugg mu nooy waaye bu gaa yi ne waa ji wax na waaye bala maa yar borom waaye yar sama bopp dama yar sama bopp gaa yi dañoo dëddu woon àddina bàyyi àddina ak waa àddina te teewul nag ñu bëgg ko sëñ Tuubaa gën a bëgg àddina ci àddina bi bu leen ma dóor nag gaaw leen la ma ko fi nekk ba ma firi sëriñ Tuubaa moo gënoon a bëgg àddina bi ko gaa yi xëccoo lu tax àndul ca xëccoo ba lu tax àndu ca dafa xam ni ñii yoruñu àddina te nit ki bu la mayee lu mu yorul da koy ñàkkaat mu dem ci ki moom àddina ni ko jox ma ko mooy kan muy Mawlaana tey ndax ñàkk na ko ndax am na kenn ku ko ci ëppale déedéet amul lu ko waral boroom ak ko jox waaye ña ko Lat Joor joxoon ñàkk nañ ko ña ko buur sàngam joxoon ñàkk nañ ko waaye ki ko yàlla joxoon du ko ñàkk ba àddina tukki bis bu ne muy gën a yokk dama dégg ci benn discours benn seex bu sant yàlla dama kontaan keroog muy wax li ko Sëriñ baa defal mu ni xam nga ni man duma ma doyee ndax gëm naa ni sama déwén a dàq sama ren bu ma dundee sama déwén mooy dàq sama ren xam nga ku àggale foofu yàlla ku àggale foofu mayu Serigne tuuba doo doye doo doye di kon Cheikh Ahmadou Bamba dafa doonoon boroom yitte ndax dañ koo yar nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko yar mu doonoon boroom yitte nag yitteem it mu teg ko ca kaw moy lan lu gaay yu bax yi bëgg dina ko am bi fi ñëwé ci Sénégal ay tariqa ban ak ban la fi fek tariqatu Cheikh Abdul Qadir Jilani tariqatu Cheikh amadou Tijani Abul Abbas ak lenn ci Abul Hasan Zarsali waye mu nit ni ay góor yàlla la waye fi ñu jaaroon ba am li kenn tëjul buntu ba wa baabulaahi lam yakum murtaja buntu yàlla bi kenn tëju ko kon nit du doye nit da fay xëccu fa nga xam ne ni gaa yu baax ya fa la ñu àggoon loolu nag ku dabtu ba kanam ku téye ba kanam yar ba kanam ba mu nooy nepp moo mën a muñ coono yooyu la ñu jël sëriñ Touba amar ko ko génne ko réewam mu muñ génne ko njabootam mu muñ ngir lan li nga koy def yow tubaab bi def na boppam lu ko raw boo ko tëjee kaso moom ca àll ba la doon dëkk boo ko xiifalee jox ko benn kaas ak benn dogu ndawal moom benn ngëbu cere la daan lekk kon nit ki bu bëggee moom boppam day mbugal boppam moom nag mbugal na boppam ba soxlaalul kenn dara ganitu billahi anil arba bi lu ñuy tuddee boroom ak moroom Serigne Touba nee na doylu naa wëlif loola kooku nag kon ah, moo indi tarbiye bu rafet bii yal nañu yàlla taas ci bakkareem noo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ah, Cheikh Abo ah, jërëjëf yalla na yàlla baril say kem yitté wo Serigne Touba lu am solo la tay nak dafa jaadu ndax li nu am yépp Serigne Touba ko waral nun ñi nek ay sugum gay nek ci àll ba sax serigne Touba doy na nu te doy lo nañ ko duñ ci dolli lenen wallahi alazim wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki talibé yi ma ngi jéggelu ci kàddu yi ma fi yëkëti tay biral rek ni ay kàddu la yo xamni dañ dañu koy yëkkati gannaaw ndigal yu bàyyi ko ci sunu kilifa muy kii yàlla teg ci boppi réew mi ñu waroon ko jottali donc duñu tàmbalee lu dul gannaaw njëggal loolu sant bu baax ak ziar Cheikh Sidi Mokhtar Serigne di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér gannaaw loolu di yëkkati kàddu nuyoo ziyaar ci njabootu Cheikhul Khadim di leen jox ñoom ñépp seen wàccuwaay te di leen ñaan ñu jottali nuyoo yooyu mbokki taalibe yi fi teew yépp ak ñi nga xam ni lii ñu fi dajale tey eh, war naa mën a rot seeni nopp walla seeni bët gis ko di nuyu sunu wëllëre sunu mag sunu mbokk Serigne Ahmed Khalifa Niass di ko ziyaar ziyaar bi gën a sedd ak nuyu sell ak nuyu bi gën a kawe mu jottal ñu ko jottalil ñu ko kilifa diine yi nekk ci senegal yépp ah tey jégalu nag ndaxte foog naa ni sëñ Cissé mi fi jëkki-jëkkati ay kaddu ak lii ñu fi wax ci conférence bi ah, la may wax du safe loolu donc di leen féliciter ñoom ñett ñi fi yëkkati kàddu ah, ci jàngu alxuraan bu sell woowu ñu fi dégg ak xasida yii ñu fi dégg kuréel yi yëkkati ko ak lii fi conférencier bi wax te muy njëriñ yi kese ah ñu ñaan sunu borom fayal leen boppam ñu ñaan Cheikhul Khadim fayal leen boppam kàddu yi nag dafa tukkee ci boroom réew mi muy kàddu ndokkeel ci bés bi ndaxte lii muy firnde rek mooy ñii nga xam ne ñoom lañu màggale bés bi ak lii ñu fi wax ci taxawaay ak jikko day wone ni rekk bu dee li baax ak li gën réewu senegaal soxlawul jéggaan yi bu ñu xamee sunu bopp xool li ñu am soxlawu ñoo xool feneen ngir jëm ca kanam ndax bu dee lu baax soxlawu ñu jéggaan ci tegtal yi ak ci li fi maam yi bàyyi rawatina li nga xam ni mooy yoonu Ahmadul Xadim te ñu tënku ci teg ci suñu tànk muy kàddu cant ak ngërëm it jëm ci njabootu Ahmadul Khadim ndaxte ñëpp xam nañu diggante bi président amat njaboot di kàddu cant ak ngërëm it mu jëm ci sëñ Abo mii nga xam ni ci yoon wii mu ne ah dinañ ko ci gën a jaajëfal ndaxte yoonu liggéeyal sëñ Tuubaa te ñëpp xam nañ ni ku liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa na la fayal boppam donc looloo doon kàddu yi nga xam ni moom lañu waroon a yëkkati muy kàddu ndokkeel kàddu cant kàddu ngërëm mënuñoo ñëw nag ci bërëb bu mel nii te njabootu Ahmadul Xadim daje fi ñu leen jox seen wàccuwaay yu ñëpp ci ñu xàmmee ñëpp te sàkkuwuñu ay ñaan yu jëm ci réew mi muy ñu ñaanal ñu yàlla gën a yokk jàmm ji ci réew mi mooy ñu ñaanal ñu ci li conférencier bi wax rek mooy nit ñi gën a jokkoo ndaxte nee na diine mooy lépp lu ñu jokkalante te bu ñu ko amee sowe nañu di ñaan it ah ñu ñaanal mbokki taalibe yi rek ñu gën a sawar ci liggéey bi ñaanal mbokk jullit yi it ñu gën a tënku ci li nga xam ne mooy yoon wi ah, sunu borom gën ñoo xiir moom ñun ñëpp ci boppam te ñu nekk ci liggéey bi loolu rek laa bëggoon a jottali ci ay kàddu gannaaw ndokkeel ak ngërëm ak cant euh, sàkku rek ñu ñaanal ñi li nga xam ni moom la ñu dégg muy ñun ñëpp ñu nekk ci liggéey bi ku ci nekk yokk ba yëg ko alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf ñu bëgg ñu waxtaan tuuti ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye tey côté bi ñu jëlee ci Cheikh Mouhamadou la Bara mooy al al mahabba ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kenn wëlantuwul ne nitu yàlla woon waaye aalim la woon borom xam-xam la woon borom xam-xam mag boo xam ne mbindam ay xasidaam côté boo jël ci wàllu ibaadaat nii jàmm yàlla su borom man nga caa jël benn pàcc te pàcc boobu boo ko jëlee da ci indi lu yéeme ndax sëñ Baara tere na ko indi na lu yéeme yéeme mel ne tey lu gàtt li tënk tey ci wàllu li ñu mën a tuddee mahabbati mooy mbëggeel bu dee français yi ñu koy wax l'amour te mu nekk lu am solo ponk bu am solo boo xam ne ci diine kenn mënut am ci yàlla suñu borom dara lu dul danga bëgg yàlla suñu borom kenn mënut am ci yonent sallallahu alayhi lu dul da te bëgg yooyu yàlla suñu borom nan lañ ko war a defee yàlla lim na ci alxuraan nekk juróom-ñett yii yéen doomu aadama yi bu ngeen demee ba gënalu leen. man yàlla akub yonanteem xam leen ne la leen xaar mooy yéen jullit ñi am mbugal moo ci topp qul in kaana aabaakum wa abnaakum wa ixwaanakum wa azwaajukum wa ashiratakum wa amwaalun iqtaraftumuha wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masaakin tarawna ahabba ni ko yàlla su mbaxa ba ci ba ci jeexantal aaya bi nee na juróom-ñett yi mooy doom wala baay wala soxna wala xeet wala alal wala kër gu rafet wala ay soxna yàlla nee na ñett juróom-ñett yi képp kum te dox sama diggante ak moom man yàlla sun borom nga ne ab jullit la man yàlla danaa ko jëflante ak yow te loolu gis nañ ne jamono biñ ñu toll war nañ ko càmbara ndax am na benn borom xam-xam bu masa laaj benn waaye mas ko laaj ne ko problème bi musulman yi jëf maanaam jànkoonte jamono bi ñu toll mooy xeex yeeg musibe yeeg natt yooyu yëpp te mel na ñoo sonn ci àdduna lan moo ko waral mu ne ko bi ñu bàyyee juróom-ñett yi jënde kook yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ci leen problème yëpp dal te loolu nag bu ñu gisee ne réew mi ñu toll Sénégal mi ngi ñu bëgg a dal ndax nit ñi talatul lu dul alal talatul lu dul kër talatul lu dul mbokk talatul lu dul soxna talatul lu dul oto bu rafet nga xam ne yooyu yëpp jaral na leen ñu bàyyi yàlla bàyyi wax yàlla bàyyi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir wut lu mel noonu wala yasubillahi taala loolu nag bu ñu fa tollee mën na andi ay jafe te jafe-jafe yi pour mu saafaru faw ñu bàyyi xel lii nga xam ne moo am moo tax Cheikh moom lañ baara dafa teel a xam lu mel noonu ndax yontu sama a bis taxaw na mu ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min wa wa min wa min walidi min walidihi wa waladihi wa naas ajmain yontu sama taxaw na bis ne yéen kenn ci yéen mënta gëm yàlla lu dul ni mu bëggee ne maanaam lu dul man yan sance la maa ko gënal baayam ak doomam ak nit ñëpp loolu yan sance bi waxee loolu sëñ Maodo nag waa yow de yaa ma gënal ñëpp ba mu des ma jëmmi bopp ci bi ma waxee loolu yan sens ne ko déet yaa Omar xatta akuna dama laa gënal sa jëmmi bopp ci yàlla mukk lu dama laa bi ma waxee loolu sëñ Maodo ne ko wallaahi yaa Rasulaay léegi di yaa ma gënal sama jëmmi bopp ci yéen tuuti sax na léegi mat na sëkk sa ngëm yàlla mat na kon yaakaar naa Sëriñ Tuubaa si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul loolu tamit la roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ moom mbëggeelam xasida yi boo jàng mënoo coo jàng ba mu jeex takk te gisoo ci baatu mahabba wala al wala li ñuy tuddee wa maanaam al al widaad al widaad mooy sopp wala al wudd wala yooyu yëngu yooyu nga xam day firi ak cofeel dëgg mënoo jàng benn xas Sëriñ Tuubaa fekk ci. te béy bi gën a nga xam ne Sëñ Tuubaa wax na li yàlla wax ne juróom-ñett yi bu leen ma gën a lul wala yenn sens ne seen jëm bopp bu leen gën a lul Sëñ Tuubaa moom tënk na ko ñaari béy moo wax ne mahat mahabbatiyal muxtaara sayyidina xubbul maqaani wala lii wala wala daal dambi wa nafsi wa walaati fidaawuhu abdan qadiman multikaani li salada Sëñ Tuubaa ne man moom damay teel a déclaré mooy bëgg yàlla ak bëgg bi yonante mu sallallahu alayhi wa sallam buñ jalaloon dajale woon li ma am lépp muy samay kër samay bien samay samay samay sama njaboot tegg len tegg yonte sallallahu alaihi wasallam ni ak yalla ne ma boo ci tan seigne touba len na bàyyi loolu lépp da wuti yonte sallallahu alaihi wasallam ak yalla suñu ndax seigne touba dem bi jagg moo ma gënal sax sama dam sama dere sama nafsu sama ruh lepp yonte sallallahu alaihi wasallam moo gënal kon kooku mat na sëkk naka no cheikh amadou doy baar tamit bo ñewé non la royé seigne touba ci mbeugël googu seigne baram non la royé seigne touba ci mbeugël googu nga xamné moy al mahabba ndax seigne baram dafa taalif téere yu bare bare bare bare bokk na ca téere bu gën a siiw mu nawér bu ne am te mu nawér bu ne am boo ko liiree rek ah, mahabba mbëggeel gi ñu wax ne ab jaam jaamu yàlla mu man sëkk lu dul dafa bëgg yàlla mu gën a ko te kenn ku ne man cee tes sa bopp sëñ baara da koo matal ba mat sëkk am na ci xasida gu leer nañ ñi goo xam ne ndax bëgg pour ñu détaillé ko gaaw day nekk juróomi bëgg juróomi bëgg yi li fekk jaam bi bëgg ko xamal ne ak maanaam des na ab cëram des na ci yàlla suñu mooy daa war a bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nit ñu baax nii waaye bëgg alxuraan karim waaye bëgg tamit doomu aadama yi mooy nit ordinaire yi sëñ Baara juróomi bëggeel yëpp da ko matal ba mat sëkk te loolu boo dellu ëmb bi da ko ci fekk bu jeex tàkk première bëgg gi mooy yàlla suñu borom sëñ Baara nga wax ci safinatu abraar bi nga xam dafa sammaytu safinatu abraar mun jeetan ñu Liko yang sumon may muy xewali mu jëlaat lepp ne da koy dellowaat yang su borom te yalla bëgg yalla mi ngi feeñ ci li la yàlla su borom jox nga jëlaat lépp dellowaat yalla borom ko jox kat man santaan naa gërem na dewaran ko te loolu day waral ak mbëggeel señ baara wax bind jël ne hada wa qalbi tuula dahri dhakiru rabbi bihi wa bi lisani shakiru señ baara ne sama xol bi day diiru jamono du deñ di tuddu yalla su borom yàlla borom mi nga xamne ne sama borom xol bi du dañ di ko fàttaliku waaye làmmiñu du dañ di ko tudd di ko sant moom moom yàlla su borom suñ baar doon ci ne chakartuhu wala azal abudu danaa sant yàlla du ma dañ mukk di ko jàmm moom yàlla su borom fii kii wa tilka abadan wa ahmad mooy fii ci àdduna danaay jaamu yàlla di ko sant di def li mu bëgg waaye ëllëg yow ma xam tamit asaare ji noonu lay demee suñ baar tegaat ci suñ baar tegaat ci bokk ne chakartuhu bi jasad yi wa xalam yi wa shukruhu an ni yusul alami dana sant sant na yalla sun borom ci sama yaram sant na yalla sun borom ci samay xalima moy téere fi bàyyi mo ne ci sant gogu moy sant yalla sun borom mo deñal mbolem luy sama manam metti kon yakarna bay bëy rek suñu bara wone na ci deug deug kan mooy yalla sun borom ak xewlu li ko yàlla suñu borom defal nan la ko delluwaat ci yàlla suñu borom te lolu fekke day takkal dara limi takkal moy jeex ci bëgg yalla sun borom mo tax mo jëlaat lépp delloo ko yàlla suñu borom bo ñewé ci alcorane karim ndax dañuy wax bëgg yàlla alamat xibbullahi mooy nga bëgg alxuraanu karim sëñ baara xasida bi ñuy wax mu nawir bu ñaan ak saadatu abraar ak yeneen xasida yu bare bare bari sëñ baara da cee xeeñal bëgg kum bëgg alxuraanu karim bañ na ko ba mu nawir bu ñaan dafa jël mbooleem suurat yi nekk ci alxuraanu karim sëñ baara jël saar wu ne mu kañ ca saar wa tawassul ci yàlla su borom pour su borom euh, maanaam xetti li ko ay xetti li jaam sëñ baara loolu def muy téere bu yéeme boo xam ne lépp la ci sëñ baara boole kon sëñ baara wane na dëgg dëgg bëgg goo xam bëgg na ko alxuraan boo sa sa maanaam sa saadot ah, moom sëñ baara sax jël di wax yow jullit bi di la soppul alxuraan karim sëñ baara daa bañ ba ci muqaddima bi da ci indi alxuraan karim ñaata saar la ñaata xisib la ñaata ruban ñaata nisfu la waaye sax ñaata baat moo nekk alxuraan karim waaye ñaata lettre moo nekk alxuraan karim lii sëñ baara lépp boo demee ci sa xees bi na saadot abara sëñ baara ko ci indi mu leer nañ loolu nag li muy toccal mooy maanaam ñor bu ko alxuraan karim ñor bëgg gum bëgg alxuraan karim waaye loolu lépp mu ngi ko doon de rek ci waaye juróom si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mi nga wax ne mi waxoon ne bu ngeen bu fekkee gis koo xam ne mi doon na daana dëkkaale Sëriñ Tuubaa ci jamono bi ñu toll nekkatul doomu aadama booy gis nekkatul kër goo xam da dem ne sàkket bi la Sëriñ Tuubaa doon tëdd mën a gis boo ko gisee xam nga ne moo dëkkaale na Sëriñ Tuubaa muy alxuraan karim alxuraan karim te ñëpp a gis alxuraan karim moo tax na Sëriñ Tuubaa ne jaawat bu fu xaan rabbi al malaktu nafsi wa zasaxtul ayn sëñ baara nag jël alquran karim li ko sëñ tuba bëggee woon sëñ baara noonu la ko bëggee roy ko sëñ roy ko sëñ tuba ba way ko ay xasda yu bare bare ngir xittal jullit ngir ñu gën a ko bëgg sëñ baara noonu def yonent salaa sallam gis nga am na way wu neex benn bay doo xam daanaka jeexal na bëgg lépp ndax sëñ tuba sëñ baara dafa ne xubbu fuaadi aynu dal wujudi xayrul wara wa naharu qudi loolu sëñ baara wax mu ne sama bëggee sama bëggeelu xol sëñ baar ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo tax yàlla su borom sàkk jaam ñëpp sëñ baara ne sama mbëggeelu xol mooy yonent bi sallallahu alayhi daana yonent boobu nga xam ne moo gën ji mbindéef waaye yonent boobu nga xam ne bëgg gi ma ko bëgg nëxa ruquud yi maanaam mënatuma nelaw ba yàndoo guddi sax mënatuma nelaw ngir sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon war nañ tamit bëgg ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñu waaye bëgg yonent bi sallallahu boo ne bëgg naa yàlla bëgg naa alxuraan karim bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doyut faw nga bëgg muy nit yàlla yi nit yàlla yi nag ka ca nekk ca bopp ba muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul muy waajur sëñ Baara moo tax sëñ Baara ba léegi mu nawwiru bu ñaan kazalik da ngay fekk mu ne chakartuhu ala ma qaada lanal xadimu cheikhuna fan qaada fa ni'matu rahmani la tuaddu walam takun taxsa wala tuhaddu lii la sëñ Baara wax ci bëgg gu mu bëgg sëriñ Tuubaa daa dem boo xatu sëñ waaye sëñ Tuubaa xéewal na ko sëñ Baara moo tax mu ne fa ni'matu rahmani la tuaddu mu ne sëñ Ba sëñ Tuubaa mooy xéewalu yàlla suñu borom bi nga xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu ko compter ndax bu ñu nee adat ci arab mooy looy compter benn ñaar ñett ba àgg limba bi jàgg mu ne loolu sax day toog ndax adat doomu aadama koy def bi mu ne sax maanaam ñu jékki-jékki bëgg xam population bi ñaata lañ ñu sonn ca bëgg xam population ñaata la sëñ Tuubaa ne bu ñu doon sëñ doon jéem a def statistique pour xam fan la toll kenn mënu ko xam bi jàgg sax mu ne wala tu xaddu mu indi li ñu mën a tuddee frontière maanaam euh, loo xam ne da ko bëgg a wute frontière ne fii la bëggu sëñ baara ya maanaam xéewalu sëñ Tuubaa yi sëñ sëñ baara daal ne loolu sax amatu ci amatu ci yàlla far yàlla dogal ci sëñ Tuubaa kon wane na dëgg-dëgg bëgg goo xam ne bëgg na ko sëñ Tuubaa sëñ baara yamu foofu bëgg gi bëgg sëñ ba sëñ Tuubaa dem na ba ci xasida gi bi sëñ Tuubaa wàcce liggéey sëñ Tuubaa wàcce mu koy marsiyaal sëñ baara daa teg fee sëñ Tuubaa teg doomu aadama yi fee teg ñëpp fee waaye sëñ baara fan la feeñal ak bëggeelam te bëgg gum bëggoon sëñ Tuubaa ngir daan ko gis ci zahir bi gisatu ko mu gis ne sëñ Tuubaa benn barab lak la mën a la nekk te barab boobu doomu aadama muntu ko gis ci zahir xëy na baatin te barab boobu mooy fan mooy suufu Tuubaa suufu Tuubaa tey moo laq Sëriñ Tuubaa Sëriñ Baara jàkkaarloog suufu Tuubaa kon foofu la bëgg mën a yem bushra ki yaa ahla Tuubaa yawma nirti ala kullal bilaadi bi hada cheikh kulla ola Sëriñ Baara jàkkaarloog suufu Tuubaa ne ko ah woo naa sa mbégte yow suufu Tuubaa bégal bégal yow suufu Tuubaa lan lu tax ngay bég mu nekk ko bisub tey bii day denc nga sa biir koo xam ne maanaam benn ci suuf yi amut te am nga lo xamné tamit benn ci suuf yi ci aduna bi amul ku mel ne sa gan gi am mu ne ko fa mislu dayfik lam yadhar bihi baladun ma an yura baladun yabqi bi badala mu ne ko sa gan gi nga am tay muy sëñ touba mi nek sa biir manam gan la ko xamné bépp suuf bu ko amoon do ko wecce kenn ko mat doon hada qadim alladhi najjal muridina min kayd al maridi fa hadu subla law amla mu ne sëriñ bii nga làq tay mu nek sa biir suuf ci sëñ Baara ne mooy ki daan muccal murid yi murid nag bu ko waxé légui moy li Cheikh Cheikh maanaam Ahmad Khalifa Niass wax léegi sëñ Tuubaa ñépp lu mu jël ndax Ahmad Khalifa Niass moo ko seere léegi nee na lu koy gënal mooy fu mu bu mu war a dem nee na bu sañoon dafay fekk ñu ne taalibe sëñ Tuubaa fa nekk ndax lan ca oyof ga ca am taalibe ga ca yar ba ca lépp lu mën doon moo tax sëñ Tuubaa kon sëñ Baara wax ne sëriñ Tuubaa mi gën moo xet li mbooleem ku daan wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon yaakaar na mbëggeel bu neex muy bus naak ba keroog muy àgg noonu la sëñ Baara wane mbëggeel gi mu bëgg sëriñ ak jaayante gi jaayante Sëñ Tuubaa bi'tu bi hada shaykh bi'tu bi hada bi hada saa shaykh Muhammada loolu Sëñ Tuubaa koy daane waxtu yi ma toll ak maa ngi jaayante sama lépp mooy sama njuróom jënd ko ak taalibe jox ko si Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ne mooy sama sëriñ te mooy sama wajur maanaam bilantiha dem na bay ñaan be ci ci biir bay xasida bu neex ko mi ngi ñaan naan yàlla taalibe yi moo tax taalibe yëpp am nañ am nañ njukkal si Cheikh Mamadou Lamine Bara ndax da koo ñaan ci biir xasida googu daan na yàlla maa ngi lay ñaan kurubu dawit ak baax maanaam toskare wala tiitaange wala njàqare wala mbugalum taalibi Serigne Touba yii nga xam ne dañoo topp Serigne Touba yaakaar ko ku ci am tolof tolof wala ku ci am bàkkaar boo def wala njuumte boo def yàlla nga nar ku ca mbugal yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb Serigne Touba mii yàlla na nga soppi loolu lépp dafa leen ko ay xéewal boo demee Serigne Bara ñaan na ko bi xas dëgg waaye kon wax naa leen ñeenti mbëggeel ban moo ci des mooy mbëggeel bi nga xam ne moom war bëgg nag nit ci ordinaire mooy doomu aadama yi damay wax ne mbëggeel gi seigne bara bëgg doomu adama yi man gisuma ci lima geussu ci nit yalla yi ko ku ci mel non gannaaw seigne touba gannaaw seigne touba ndax seigne touba mom léppam pour pour doomu adama yi waaw lepp ngi doomu adama sooy moo tax sëñ baara sababu anna la tabaarak ta tabaarak wa taala arad an ana la min jaha wa ana ko shafi'an wa akul khadim fi dawl lolu seigne seigne touba mom lolu ndek def déclaration waye seigne bara bi mu da daa royaat ci tànki waa juróom muy cheikh amar muy seigne touba gisal khassida gu gatt go xamne ñetti beuy la seigne bara wax de xasida gi képp ku ko xool sax wut ko mokkale suñ baar dane xasida googu képp buñ ko bind ku ko xool at moom doo ci fàtt mu yaa rabbana innal wara tadarramu li awliyaika ma an yaa rabbal wara wa amnan ahad yaa man taka yaa man taala lay nokkum ko fa ahad foofu la jeexale ñetti bay yooyu li muy ñaanal mbindeef yàlla yi daa jàkkaarloog suñu borom ne am nañ ay bàkkaar am nañ ay soxla am nañ aajo jub nañ man maa jub ngir ñëw tinu leen ci sa awliyaullahi yi ka ci njëkk mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu ne yàlla yàlla nañ leen tinu faj seen i aajo zaahira na nag jéggale seen bakkat àdduna ak àllaaxira lan lañ seen baar tegal tegaat te tuddaat turu yàlla suñu borom yaa rabbana yaa rabbana fa kunna naa yàlla yàlla na ñu nekkal yàlla na ñu nekkal jaam ñëpp képp ku am soxla yàlla na ko nekk faj soxlaam waaye képp ku euh, feebar yàlla ko fajal jàngoro wajjih lana lutfan wa am na yàlla yàlla jox sa ñeewantu te kenn ku nga xam ne yàlla képp ku mu bàyyi nga du nga nga toog ba suba wala boog nga dox xamal ne ñeewantu yàlla suñu doo la bàyyee ndax maa ngi doon dégg benn borom mag bu wax ne euh, doomu aadama bu ne bërëb jël kaasu ndox sax ay boo xamoon diggante boobu li ci yàlla daj ba mën a jug jël kaasu ndox boobu boo ko xamoon bala moo def lenn day dëkk di sant yàlla suñu borom ndax nee na li tax am na koo xam ne ni yow la mel paralysé na feebar na te jii bu toogoon diggante vingt centimètres ab kaas jeeg ku mbëkkoo jël faw ay doomu ba ñoo ko fekk man koo teete pour mën a jël lu mel noonu moo tax suñ baara kon ne yàlla yàlla nga indi ak ñeewantu ci sa jaami yàlla yi lan la ko jeexale wajjeex na lutfan wa am nan yàlla ñu may sécurité sécurité kenn ko xam àdduna bi fi ñu ñépp a ko soxla suñ baara daal di ñaan yàlla suñu borom kon yaakaar naa loolu la ñu waxoon dañ ko indi ci mbëggeel gi nga xam ne suñ baara euh, wane na ko ci diggante yàlla suñu borom yentu salaam sa alxuraan ak sëriñ Tuubaa ak jaam yi waaye lan la ñu mën a jeexale ci ñun pour mbëggeel yentu salaam sa wax na ci ñaari hadis ñaari xadis yu am solo yoo xam ne moom la ñuy mën a jeexale bu ko defee yaakaar naa nit ñi mën nañ cee roy foofu ci Cheikh moom lañu baara ba dara ji am yàlla su mborom may ñu ko ndax bu ñu ko xeebale suñu bopp yonent salaas dafa wax benn xadis bu leer nañ mu ne inna allaha taala yaqul yawmal xiyaama mu ne ëllëg yàlla su mborom ci yawmal xiyaam bis bu tar ba bu metti ba yàlla tax taxaw ne aynal mutahaabbuuna bi jalaalati ay nañu soppante woon ngir man ngir sama jëmm ji man yàlla ak sama màggaay ana ñu soppandool ci àdduna yi war nañu soppante waat raxasaat xol bëggante ànd nekk benn kenn ku ne nga yéene sa bopp ngir tekk nga yéene ko sa morom te xam ne loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu suturaal mën nañu dimbali ndax àdduna kët ak xëccoo kese la yàlla loo fi am yàlla su borom may na ko koo xam ne gëmut yàlla te mosu koo jaamu bu bu buy gaanuwaay sax day taxaw te yàlla su borom jox na mu ëppale kon li ñuy rawantee fii ci àdduna mooy soppante bëggante yàlla su borom tax loolu bu ñu ko defee yàlla su moo tax yàlla su borom wax ne yonent sans wax ne bis boobu yàlla ne anañu soppante ngir sama jëmm ji bu ñëwee yàlla su borom ne dugg leen àjjana bi xëy di xisaabin dem leen ngeen tabbi àjjana kenn du leen xisaab yonte sa sa waxaat ci beneen xadis ne juróom-ñaar ngi ñoo xam ëllëg yàlla suma dañ leen keral dañ leen keral bis ba nga xam ne naaju dee tàng jër yonte sa sa ne ñaar ñooñu mooy lan mu ne ñaar ñoo xam ne rajulan tahaba fillahi ñaari jaami yàlla yoo xam ne dañoo soppante ngir li wajjillahi ngir jëm yàlla sumu borom yonte sa sa ne na ëllëg yomal xiyam ñaar ñooñu bi melee noonu taxawaay baag bang baag ak lépp lu mën doon ko fekkete kon mbokk yi yàlla ñu yàlla boole ci nga xam dañu soppante bëggante ni ko yent saa sal waxam te bëggante leen ndax du ma leen tàccal loo xam bu ngeen ko defee da ngeen sopp da ngeen bëggante mooy lan mu ne if eh, assu salaama na ngeen di maanaam nuyonte seen biir di siiwal jàmm seen biir wa itaamu taam te ngeen di leela aw ñam yonte saa sal ñaar yi bu ñu ko defee ñu julli dana soppante dana bëggante wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa bi nga xamante ni doon na doon seen tubaa ngeen xam ne moom sëñ abdoulahi borom dara bi dafa am lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax talabul ilmi min al mahdi ila al lahdi mooy jàng xam-xam du weesu ca it xam-xam buñ la ko jàng doo ko xam sëñ Abdou borom dara bi day mel ne déggoon na lool lool xamoon na loolu dinaa leen wax léegi lu koy tegtale mooy li ñu war a njëkk a roy ci moom mooy xam-xam ko bàyyi dañoo war di sàkku xam-xam ba faaw sëñ Abdou ci noonu la tàmbalee ba defe naa ay 1907 mu fi ñëwee ba ni jógee 1960 mosut a jógee ci sàkku xam-xam yu mel noonu war na ko roy ci yu mel noonu. bokk na ci li liñ ko war a mën a royee mooy nit ki dafa war a nekk li ñu wax isaam yi mooy koo xamante ni bu la kenn juruta nit nga war a mën a dem yoon mooy sëñ Abdou boo jëloon ber ko teg ko muy Abdoulahi wax mooy kan lim xam lim def lim liggéey lim investir lim bàyyi ci réew mi doy na sëkk kooku mu doon koo xamante ni kuñ war a bàyyi xel la donte kenn du bàyyi kooku ma laal nag li ci doon nekk nga xamante ni Mawlana Cheikh Ahmad Bamba moo ko jox loolu doy sëkk sëkk aw melokaan loolu warees na ko ci roy mooy nit ku nekk da ngay am cër bu kawe kawe bokk fa fu ne fa gën a kawe waaye nag nga ne nag naa defal sama bopp leen mooy naa doon koo xamante ni tey histoire réew mi fi mu tudd war na maa tudd ndax ci côté bu mu mën ci ñi nga xamante ni liggéey nga ci warees na cee xam ci say Abdou bokk na ci li nga xamante ni warees na ko cee xam mooy ci intellectuel loolu maam sëñ maam Cheikh ñoom ñu ngi sàq xam-xam sëñ Abdou culture am yaatu gënoon na yaatu culture ci la jàpp naa ne nee nañ man li ci gën a bari ci li may ci wax di ko xam ci biir wax ji ñu nekkoon ak moom wala jaxasoo ak moom moom ko loo xam ne rek dama koy toxale ci ay kii noonu mooy nekkoon na ku ubbeeku lool lool lool lool niveau bu kawee bu mag bu mu am jàpp naa ne lu mu réussir bari na lool ci li mu dund néew na lool du sori juróom fukki at ak benn juróom fukki at ak ñaar waaye niveau bu kawee bu mu am xam àdduna si mu toll ndax fu mu toll ni mu daan xame xibaar yi xew ci réewum senegal mi daana xam ne xew ci àdduna sépp loolu bokk na ci li ko may kon amoon na saqaafa boo xamante ne weesu kawe woon na lool lool lool lool bokk na ci li ko may loolu niki noonu ba tey dikk ju rafet ndax relation bi yaatu rafet na lool digganteem ak ñi mu tàmbali wax Sëñ Tuubaa noonu sax ñu nit ñi dañ koy wax léeg-léeg waaye jël ko maanaam diw fonk na ko loolu tudde na ko doom c'est normal nit ki doomu bàyyam lay tudde doom waaye weesu am na ci loo xam ne sëñ Murtala moom ko nekk li ñim xamoon sëñ Murtala xam nañ ñoom moo seqoon naag moom lu may nekk ay mbir ca li ci ëpp rek mi ngi aju ci digganteem ak moom lu mu kawe woon bi mu bi wax ci daataa daanoon mu xamal ma ne lu mu seqoon ak man seqoon na lu ko raw ak doomu sëñ muy ñi mag fuuf misaal bi ci gën a mag bi mooy sëñ Abdoulaye Baara mi ngeen tudd léegi ne sëñ sëñ Baara lañ ko tuddee ak sëñ Bachirou Mbacke mi nga xam ne doomam ji nga xam ne ci ñu gën a mag la bokk mu sëñ Abdou Akim te sëñ Abdou Abdoulaye borom dara lañ ko tuddee sëñ Mourtada ñoo ko nekk woon dalil ma ci nam Abdou mii Abdou Abdou Aziz lañ ko daan wax ñun ñu gën a taan wax Abdou Kassar yàlla ko yàlla dalil yërmaane mu ne ma Abdou mii moom laa ko tuddee ree daan ne ma yëmutoon foofu maanaam doo doomu sëñ Touba fi ma jaara ñoom foofu la jaara ñoom man ka rek laa njëkk xam ne sëñ Abdou Akim sëñ Abdou borom dara lañ ko tuddee defe naa si yëpp logis baare njëkk xam xam nga loolu itam lu yéemu la ma tàmbalee ko rek ci li njëkk a wax mooy moom dafa nekkoon koo xamante ni xam-xam dafa jàppoon ne lu mënta ñàkk ci dund la ca noonu la noonu la demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu njëkk a wax li ko jibril wax keroog bu waxee wàcc moom iqra jàngal dégg na loolu lool jàng na lu bare bare di nga xamante ni judd na ci ay waajuram yu tedd cheikh abdullahi cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu juddu yi ci jamono ju neex ku ne xam na ne seen Tuubaa étape yi mu dund bari na étape bi ñu ko doon nattoo ak étape bi ñu ko doon fayee waaye li gën a yéemu mooy sëñ Abdou nee nañ mooy taawu ginnaaw géej gi mooy taaw bi ñu fayee seen Tuubaa mooy day mel ne bi ñu fayee sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ñu xamal ne gànnaar lañ ko fayee man zanna sayri xibba aami ak sa si misla masiri la sa aami jay sa si sabara kawnuhu jahula al-ghumra bal huwa tatyibu al-ali lil umra lam yab soy sa sin siwa jasa man li xaada baadu abdan an jasa ne sama ñaari tukki benn la ndax gànnaar dañ ko doon fay day mel ne nag biñ fayee Sëriñ Tuubaa ba ñëw ci la Sëriñ Abdu moom fay mooy fayu Sëriñ Tuubaa boobu ñu nag mu jëlee ko gànnaar jeexital na lool lool lool lool lool Sëriñ Abdoulaye borom dem ci ku mën a jàng su ko am xel nag moo tax may wax kaate di sant sëñ aboo sëñ aboo bokk ngeen gépp sant nañ la gërëm nañ la sagal nga ñu teral nga ñu sigil nga ñu soxna Ami Gueye mi nga xam ne nii mooy sa waajur bu jigéen muy rakk ci man di rakk ci famille bi taxawaayam ci sëñ Cheikh Moustapha xasaayit yépp rafet taxawaay bu rafet la bu ñépp naw ba njabootam gi royukaay lañ waaye yàlla du juum wal baladu tayibu yaxruj nabaatuhu bi izni rabbihi wallazi xabusa la yamilu ila nakida loolu yàlla moo ko wax muy wax ju tey ju tell bi alxuraanul karim bu yow noonu rek nga war mel ndax baladu tayib fi nga bokk la fi nga juddoo ba fi nga bokk la damay wax toujours ne sëñ Moustapha Xasaayit bu sëñ Touba ñëwaatoon ci àdduna mën naa wax ne du soppi ab toogaayam loolu lu ma wér la parce day mbokk ci man ma xam ko sëñ Moustapha Xasaayit kiimaan la ci waa kër sëñ Touba kiimaan la da koo xam ne xasaayit sëñ Touba yëpp durus nga ko ba xam ko mokkal ko ba pare wañ gannaaw àdduna foo ko fekk mi ngi ci liggéeyu sëñ Touba kenn du ko werante soo waajuru góor kon yow sëñ Abo noonu rek nga mën a mel nii nga mel nii rek nga war ni mënoo mel neneen euh, Ahmed Khalish Niass wax na wax bu am solo gis nga ñu murid dañu am chance kon nag il faut qu'on saisisse cette chance di ko gën di exploiter bu baax ñu nekk benn bloc dara ban ñoo dispersé ndax ñun am nañu rëy mu Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa képp ku ko am waratoo tiit dara loo bëgg di nga ko am Sëñ Tuubaa ko doyaloo loo ko di nga ko am kon ñun dañoo am lu rëy ndax Sëñ Tuubaa li Ahmed Khalish Niass wax dëgg colon yi jëm nañ koo yàqal actuellement boo gisee te Jeune Afrique loolu fi amoon bu yàggul c'est toujours une continuation de l'œuvre des colons mais du sotti du jàpp ñun nañ dëgër rek am fi taxaw te xam ne fii ñu taxaw rek mooy foofu gis nga sëñ Touba bu disparaître rek ci l'islam rek l'islam disparaître sëñ Touba moo téye l'islam il ñu xam ko ñun lu ñu xam sa xamuñu ko nusra al islam inda qurbati bu koy wax du caaxaan suñ tubaab bu demee ba ne lislaam yëpp jël nañ ko teg ko sama loxo bi téye ko gàddu ko loolu waxu caaxaan. di nuyu mbokki taalibe yi. di nuyu mbokki taalibe yi. di leen nuyu ci turu njabootu Cheikh Abdoulaye Mbacke yëpp. di leen nuyu ci turu njabootu Cheikh Abdoulaye Mbacke yëpp. li ko dalee ci seen kilifa ñun ñëpp muy Serigne Cheikh Ahmadou li ko dalee ci seen kilifa muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke. di Serigne Moustapha Xassay. di Serigne Moustapha Xassay. ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. ñoom nuyu waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di nuyu waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara xam ne digganteem ak Serigne Abdou ñëpp xam nañ ko mi nga xam ne diggante ak Serigne moom ak Serigne Abdoulahi ñu bari xam nañ ko di nuyu Serigne Abo di nuyu Serigne Abo ci bis bi mu taxawal ci bis bu mag bi nga xam ne la taxawal defal taxawalal Cheikh borom mamam ren ji mu dippé wat ko mamam mu cheikh mohamadou lamine serigne abo mang koy nuyu serigne abo serigne yalla mi ngi lay nuyu ci turu njabot gi yeb ci turu njabot gi yeb dila sante dila sante bu baax ci liggéey bu rafet bi mu liggéey ci liggéey bu rafet bi nga liggéey liggéeyal ko njabot gi yeb liggéeyal ko njabot gi yeb nak njabot gi yeb ñu ngi la ci gërëm njabot gi yeb ñu ngi andoo ci gërëm ñaan sa ke maam Serigne Touba di ñaan ci sa barke maam Serigne Touba sa ke maam Cheikh Abdoulaye ci maam Cheikh mu bis bi mu téyel bi yokk iya, iya, ko yokk ko ba yóbbu ko fa ko bëggee ba yóbbu ko fa ko bëggee rek lañ ci amal luñ ci sànni ci kaddu nee na loolu la amal luñ ci sànni ci ay kaddu ndax liñ fi war na wax wax nañ ko ndax war wax ñi fi wax nañ ko kon li ci ak la rek li ci ak la ci ak ñaan ak ñaan di ñaanal képp ku fi teew. ak ñaanal képp ku fi teew. yàlla Serigne Touba faj sa aajo. yàlla yàlla Serigne Touba faj sa aajo. ci barke Cheikh Abdoulaye mi moom bis bi. ci barke Cheikh Abdoulaye mi moom bis bi. barke Cheikh Mouhamadou Amine mi ñu ko tuddee. ci dara yi Serigne Mouhamadou Amine Bara li ñu ko tuddee. di sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. wasalaamaaleykum wa rahmatulah.